mais aujourd'hui xam nga boo ne tourisme rek sénégalais bi ni mu koy foogee day yaakaar ne hôtel rek mooy tourisme. Mhm. attraction am na yow man ngaa jóge fii tey ànd ak say doom ngeen dem dans les îles du Saloum faire des visites pédagogiques ku yooyu yëpp ci tourisme la bokk c'est aller à la de l'autre boo jógee fii Dakar dem dans les îles du Saloum tu n'as pas l'habitude d'aller là-bas avec tes enfants. Mhm. donc tu va pour découvrir quelque chose. tourisme de découverte da ngay dem découvrir aussi les patrimoines culturels. voilà et les patrimoines culturels man nga dem nga découvrir yi dara. mais on est en deux mille vingt boo ma waxoon y a de cela dix ans en arrière. Mm-hmm. Sénégalais yi amuñu woon notion tourisme. Mm-hmm. mais aujourd'hui quand même il a il y a quand même euh, benn benn benn benn benn développement boo boo boo boo boo gis tey ci. Sénégalais mais pourquoi on le si si on le sent c'est c'est parce que yow c'est parce que vous vous vous êtes là. vous, vous êtes des journalistes. Mm. Mais nu ki sommes au cœur du du du métier et des service xam nañ ne tey sénégalais yu bëri à 13h à midi wala 14h ñoom ñooy feesal tey restaurant yi. te loolu amul woon avant. Mm-hmm. est ce que tu comprends maintenant li li nga xamante ne mooy hébergement. Mm-hmm. nag dafay ute parce que ki nga xamante ne mooy jóge bitim réew di ñëw mooy dem tey dans les hôtels tey di fa di fa dëkki. Mm-hmm. parce que amu fi kenn ku. ko koo xam ne xam na ko fi contrairement à sénégalais bi fi dëkk mais nag aussi les sénégalais aussi parfois les week-ends ils peuvent aller avec leur famille ouais. pour vraiment décontracté wu toog foofu ak seen ay doom euh, laaj chambre yi dëkk fa donc loolu rek ça revient à ce que je disais tout à l'heure dama ne pour mieux développer le tourisme interne il faut adapter le prix des hôtels au pouvoir d'achat sénégalais est-ce que vous comprenez tey buñ ko bëggee gën a développer dañuy wàññi njëgu hôtel yi ba pare agence nationale de la promotion touristique bi joué ci benn rôle déterminant pour mën a dimbali sénégalais bi nga xam ne bëgg naa dem feneen. naka la naka lay demee feneen. ñoom defuñu seen rôle ASP. non j'ai pas dit qu'ils avaient leur rôle en fait man j'ai di que il fallait faire des propositions très adaptées au contexte sénégalais mooy il faut faire ce qu'on appelle l'agence nationale rôle am mooy def la promotion du du tourisme au Sénégal. Mm-hmm. léegi nag pour mu def ko mën a développer le tourisme interne man j'avais proposé de faire de mettre en place ce qu'on appelle les chèques vacances c'est-à-dire ok exact les chèques vacances mooy ASPT dafa waroon a dem dans les hôtels de la place signé ak ñoom ay convention dem ci entreprise yi aussi signé ak entreprise yi ay convention mais ñoom ñu def non xa defuñu ko parce ah, que je les connais si si je. non ah man ñu ngi koy def. non mais la dernière fois ñoom signé nañu benn collaboration ak fédération sénégalaise de football. xam nga donc bu loolu c'est quand même. Euh, mais il faut nga comprendre li may théoriser. bu fekkee ne ñoom ñu ngi koy def il faut toi qui suis là devant moi me dire nan lañ koy defee parce que yow mii li ma bëgg a wax ko. waaw ah, allez man technique laay wax ak yow tey jii bu fekkee ne tey gars yi jóge nañ fii dem dans les entreprises si ak ñoom ay convention dem ci ay hôtel signé ak ñoom ay convention pro tourisme euh, ASPT dafa am budget de promotion. Mm bu signé ak ñoom convention ñëw par exemple ci seen télé bi signé ak yéen convention danaan Aïcha mi Kéwé mi dafay dem congé au mois tel à tel mois léegi nag période boobu nga xamante ne un an euh, parce que on travaille douze mois pour prétendre à un mois de congé sur les douze mois mun nañ lay prélever tous les mois quinze mille francs bu ñu la koy jëlal quinze mille francs pendant douze mois hôtel bi nekk euh, Pointe de Sarène par exemple je vais pas faire une publicité d'un hôtel hôtel boobu par exemple mën na si signer convention ASPT léegi ASPT yow sa sa cent sa sa cent vingt mille francs yooyu mhm. mu ne la mën nga ci am quinze jours de séjour dans les îles di Saloum ça ak ak sa ak sa ak sa njaboot yow sa te permettra nga xam sa dëkk permettra dina la permettre aussi say doom mën a dem vacances ASPT léegi nag li ci des ci xaalis même bu dee cent vingt mille tuuti nag moom moom dafay fayaat hôtel boobu ci budget de promotion ça permettra au Sénégalais tout un Sénégalais de voyager à l'intérieur du Sénégal